Malal Ndiaye la Malal Ndiaye ak Abdou Diouf ñoo bëri spécial combat boobu. Gris Bordeaux Lac de Guiers loolu Petit Mbay Petit Mbay moo ko tëggoon. Petit Mbay ak Demba Diop. action 2000 su ma juumul face à face bi ce que defee wuñ ko woon Sorano ñu boole Gris Bordeaux Lac de Guiers 1 boole Bombardier ak Tyson su ma juumul ñu ne woon dañuy croiser ñu ci daan dañuy def final est-ce que du woon loolu. Mm. décembre 2016 la woon mais suma ma juumul daal euh, su juumul kii moo. Abdou Diouf maanaam Ndiaye la ci bëri loon pour kooku doon kooku di ko laajte ci commentaire yi lu mu karaa. waaw. mais El na mën naa la. Eh, maa ngi lay ziar El Faram xam naa ni moom leel bi laa doon dissimulé mais tey moom faa mu wootu ji quoi parce que coow li nga ci leel. leel maa ngi jëw man de leel bi xanaa gisoo ko commencé naa yéeg moo tax damay ndellu rek. non tey est ce ma ndellu sax Faram. non ndellu ah moo gën a noppale de booy sangu doo sonn de. macha allah macha allah. mais naka coono yi mbaa yaa ngi am jàmm. Santia ya, Lebak alhamdulillah may Santia Lebak ba lu eh, dess kon la eh, programme bi nga xamni ci nga nek fan la tollu ndax gaay yi ba léegi yaa ngi ci Alioune Seye numéro 2 ak kan? Ali Sey numéro 2 ak ki eh, Mourante bu Thiès Anta bu Thiès suba la incha allah arène nationale samedi mm-hmm. ak Modou Anta ak Jander production live pay per view la seen affiche comme so mom gaay yi amul direct Sénégal bo mom euh pay per view la Sénégal ak diaspora ak yëpp moom dem stade rek mbaa jënd pay per view pour seetaan. loolu am na solo loolu am na solo. yaakaar naa ne Malo Pikine Malo bàyyi ma <laughs> ah. Malo Malo léegi dama fay sax. Ah, allez Malo ah. defal demande. ci côté mais mais man li sans problème. côté làmb li sans problème. ci côté làmb bi dafa fay léegi people bi lay gën a privilégié quoi. Ah, làmb ay ñoom ay ñoom Boucher ñoo ko récupéré. mais mais mais temps yi nag suñu làmb ji bës bëri na coowal. ah non. làmb ji nag demuñ dafa sànni xam nga man lii c'était prévisible. Mm-hmm. gisu xamoon naa ko depuis ay huit mois neuf mois ci ginnaaw. xamoon naa en coulisses affaire yi xewoon quoi. Mm-hmm. mais bu la dara ndax c'est regrettable. c'est très regrettable yenn coow yi ci làmb. Mm-hmm. Euh, parce que yenn coow yi boo gisee sa ay frères sa ay grands. di am yenn coow yi du la neex mais coow li ci làmb ji bokk jàppal ni bokk na ci lu dekkal làmb coow li mooy defar làmb waaw ah, ci non ci côté avantage u amateur neexul nag ah, neexul xam yow moom da bëgg a coow temps yi moom mais non non bës nag sans dara nag sans dara ah bës dara hmm. coow li coow li coow li coow li ci bëri li ñuy hmm. coow lépp mooy seen avenir ci làmb seen bëgg-bëgg ci liñ bëgg a defaree làmb hmm. seen yokkute ci làmb man hmm. loolu laa ko jàppatee non li nga fadam man j'ai senti que làmb ren dina neex xam nga lu tax mooy lan saayu ay promoteur nekkee ci ay coow saa yu xëccoo bariwee ci promoteur promoteur dina def ba def lu mu mënul bàyyil xel bu baax hmm. ay promoteur dinañ def ba def lu ñu mënul gis nga saayu xëccoo amee ci làmb affaire bi nekkatul fumu mu toll nii gis nga promoteur li ñuy baax koo del xool fu toll lan lay doon maa gën a neexle journée maa gën a baaxle ay combat am combat royal maa orga maa feesal stade bi maa def lii maa def lee gis nga défi yi day léegi défi yooyu moo tax niveau bi day élevé mu toll nii làmb bu njëkk dafa amoon làmb bu muy dox dëgg li ñu ko laay moo fi nekkoon diggante 2011 2012 ak Gaston père Gaston. làmb ah Luc Nicolaï sax mën naa ko ne père Luc ak <laughs> su ma nee père Gaston. Mhm. ñu dem ba 2012 2013 c'est la Aziz Ndiaye tombé avec Luc Gaston wàññi loxo bëggoon plafonné cachet Aziz Ndiaye ñëw dugg. ancien père sëñ Modou Niang toujours moom doon def liggéey bu am solo ci petite catégorie mais avec le retrait retrait de de, retrait de Luc et de Gaston. loolu ki nga xamante ne mooy Aziz dafa amul le monopole gis nga gis nga gis nga business bu ci kenn amee le monopole rek dootul neex business mm-hmm. bu ci nit amee le monopole dootul neex il faut mu am tey ñeneen ñu ñëw concurrence loolu moo làmb ji sëngee buul mais bu ñu demee ba léegi depuis quatre ans cinq ans gas ñëwaat makkan di jouer rôle bu am solo mais li gën a li gën a li gën a indiwaat làmb ci deux mille vingt trois deux mille mooy on a on a de de, de nouveaux visages mooy mel ni jàmbaar production ñëw avec des mois, yoo xamante ne mën nañu tey production avec des crédibilité wu bëgg fu mu donniez 150 millions avance wala 200 millions avance jox ay mbër euh, Ibrahima Diop Kadel production révélation Ibrahima Diop Kadel production da doon dox Modou Lo Boy Ibrahim Diouf fayon na ci Mourdo Boyna ku ci nek 150 millions té paré won na pour génné ku ci nek 75 millions Ibrahim Diouf fayon production Ibrahim Diouf xawma lu ko ci génné mais Ibrahim Diouf Modulo Boyna Ibrahim Diouf était prêt à débourser 550 millions pour Modulo, 150 millions pour Boyna et il était prêt à la signature du contrat à donner 75 millions à Modulo et 75 millions à Boyna numéro 2 légui nak euh. promoteur yu bees yoy feñ ak d'autres promoteurs yi nga xamantene ñu ngi leen doon bëgg a lamb làmb ñu def seen retour en la personne de Luc Nicolas nga xam day wax nga sante ki dafa sisu yaram bi dafa tang nga dégg itam Makan itam avec ses projets mais nga dégg itam Baye Ndiaye qui est venu et Aziz qui est derrière Baye Ndiaye Aziz dem na ba ku bëgg yakal ku bëgg yakal tay ki nga xamante moom mooy moom mooy Aziz moom mooy Baye Ndiaye Aziz ne da ci teg waaw hmm? aja bëgg waaw ma ne ma ne Aziz dem na ba ne Aziz dem na ba ne ku bëgg yàqal Baye Ndiaye waaw gars yi. nga ne Aziz nee na euh. Aziz nee na ku bëgg a yàqal Baye Ndiaye. moom bakkanam la ci teg. donc mhm. mu ni concurrence bi bi dafa élevé mooy li nga doon Alaaji Fadam promoteur dina yor 500 millions ci poosam wax bi nga doon xóot man du ma ko fàtte promoteur dina yor cinq millions ci poosam bëgg a bokk ci tool yi te du ci mën a bokk. Mhm. loolu jàmbaar production fu mu toll nii. ils sont très crédibles très liquides très cash ils ont de l'argent mais fu mu toll nii ils ont du mal à décrocher un grand événement une situation où ñu toll le mm-hmm. parce que gars ils ëtoo nañu ils sont obligés de se rabattre sur les combats yi nga les jeunes dégg naa le discours de Mansour qui est très intéressant ils sont obligés de se rabattre sur les jeunes comme Talfa comme Franck, comme ñeneen Ils ne pas bëgg organiser une même journée mais il faut pour nga décrocher un ténor opposé ko ci un bon combat mais loolu c'est très difficile actuellement parce que ku les xam Balla mais Balla Gaye 2 dafa am contrat moral ak Albourakh Events tey pour keneen décrocher Balla Gaye lu jafe lay doon donc tey lamb ji c'était prévisible que coow lii nga xamante ne moom moo am démarré depuis neuf mois dix mois c'était prévisible que coow loolu noonu dina am benn boost bu muy def ci làmb léegi làmb nag mu ngi soog a toll ci ku mun sa morom yéegi mais gars yi sportivement sportivement

mais xeexu suuf loolu mais mu ngi doog jëm kaw. doogul jëm kaw moom laa wax gars yi dañu toog di wax rek mais duñu xam li nekk ci biir yëpp xeex bi dëgg dëgg dëgg tàmbali na depuis dix mois missile yaa ngi dem mais léegi dina am ñuy toll mooy li guerre bi dañ koy officialiser mais li ñuy ñaan yàlla mooy gars yi delloo si seen xel nañ nekk concurrent mais nañ koy rafet parce que ñi doon ànd démb ak barki démb te war a ànd ak suba nañ ko rafetal man loolu rek laay ñaan parce que tey ñun on est très mal à l'aise parce que Allah Alaaji Fadam comme mel ni yow tu collabore avec tous les promoteurs da ngay liveal Ibrahima Diop di liveal Makan hein? tey je me rappelle benn jour sama yaram dafa daw dañ ñoo nekk Sorano moi am communicateur traditionnel traditionnels yu mag yu animé plateau bi ñu dem ba ci dara desul lu Balla Gaye Boy Niang taxaw Père Gaston jóg ne ana Fadam ana Fadam ñooy war wareen Fadam mu ñëw nga tok ci tribune yi mu bëgg a pour nga ñëw poser des questions woo leen Lamine woo Babacar donc lu mel noonu tamit Baye Ndiaye lu muy liggéey rek woo yow nga ñëw taxaw lu ñu ko lay dem ba taxaw tamit di dugg ci say live Ibrahima Diop itam lu muy liggéey itam di dugg ci say live donc lolu tay ñun on est mal à l'aise quand il y a des conflits ci tay ñu wara talal suñu micro war ko talal makan mu wara tay clash lu ñu ko lay wala Aziz wala ñu tàllal suñu micro Luc wala ñu tàllal suñu micro Gaston wala ñu tàllal suñu micro Aziz wala Baye Ndiaye ñu war a am ñeneen ñu ñu clash ñun on est très mal à l'aise donc bu ñu sañoon guerre bi mu mënta ñàkk làmb ku mun sa morom yi xëccoo leen ay mbër defante leen mais guerre bi nañu yàlla bu ñu koy officialiser ci ay médias liy xew nañ koy régler ci suuf vraiment yëpp du normal quoi. mais man mais man man dafa am benn foo xam ne nii chaque rawatina ci côté Balla Gaye numéro 2 Boy Niang Modou bu ñu bëree ba pare roi des arènes bi kan lay bari laat Balla Gaye numéro 2 kan lay bëri laat Siteu phénomène mu ngi ci côté bi taxaw Sa Thiès jël na ma seen yooyu yëpp Tapha Tine ngi taxaw fële ci benn coin ndax Tapha day jël ball Gaye numéro 2 wala day dem xaari diggante booy Niang ak Modou Lo lu fay am loolu lépp ëmb ci làmb bës mais lima ci jangate rek bës moy comme liñ doon waxtan rek moy ben pour lamb mën avancer il faut tamit promoteur yi nek di bëgg bës ci mag yi pour mu leen di jaral ci événementiel ci ñu ciy créé lu nek hmm. mais li nga xamné ni tey jii démb digg nañ ko mel Makan taxaw na ni man amo sen mën ta bëreeg mën ta mën ta bëreeg sa ci tagu mu tàggu ma. Hmm. Hmm. Eumeu Sène wax lool euh, Makan meng wax na lool amo sen yaakaar na ne tamit biñu ñu contrat contre Balla Gaye numéro 2 la woon. Eumeu hmm. Sène jël na Sa dégg naa ci kaddu Makan Mbengue tamit ne Eumeu Sène mu ngi ak suñu avance hmm. digganteem ak Franc combat bu am solo la yooyu yëpp dégg nañ Makan développé ko dégg nañ tamit Aziz génn wax ci diggante ki nga xam ne mooy Makan ci wàllu contrat yi xaalis beeg yooyu hmm. yooyu yëpp ci waxtaan rek lay mujjee ndax ñoom ñëpp yàgg nañu ànd di liggéey te kenn fekkewu ko tey jii yooyu yëpp ci fa la ñu jëmaat mais tamit li ci mënti am tamit intérêt làmb la nañu xam ne euh, tedd yooyu noonu bu ñu bëggee liggéey rek xam nga bu ñu joxoon seen loxo 100 pour saa day rey làmb ndax ku ci nekk dina sóoraale moromam waaye bu ci ku nekk bëggee def njàmbaar rek intérêt làmb tamit lay doon ba euh, alaaji bëgg. waaw mais lu muy yàq mën na bëri parce que xeex bi ak alaaji Fadam j'ose dire qu'on a sauvé beaucoup de grands combats alaaji Fadam gis nga euh, ñetti combats yi taxawoon ci mois de novembre bi jël naa nit ba taay mu ne ma ñetti kombaay yi benn du ci am. man ma gëm ni ñetti combats yi day am alaaji Fadam dañu jël suñu puso ak suñu weñ. di ñaw di ñaw di ñaw di ñaw bay bëgg a dee mais làmb def ci am ñu bëri ñoom dañuy yàq coow li set coow li neexal na xëccoo bi neex na mais dama ne la alaaji fadam gis na yàq gën a yomb defar mm-hmm. tey amoon na ay ay ay ay ay ay bomb yoo xamante ne buñ ko désamorcé wul woon au moins di nga gis ñaari combat yi woon am ci mois de novembre bi on a désamorcé énormément de bomb te ba léegi ñu ngi désamorcé ay bombes di ci góorgóorlu pour intérêt intérêt làmb tey làmb dafa am fenn fu muy toll gis nga euh, tey gars yi fu nekk dañuy am pion kër ay mbër dañuy am ay pion kër ay promoteur dañuy am ay pion CNG dañuy am ay pion feneen ak feneen ak te yàq dafa yomb te combat yàq dafa yomb hmm. am na fi combat yu bëri yoo dañ ko sauver stratégiquement lañ teg suñu ay jumtukaay teg suñu ay système pour sauver combat léegi nag man li ma lay wax mooy xeex bii nii nii dëgg la mën na neex ci jamono ji ñuy xëccoo ay combat mais à long terme du neex ba ci nekk dafa mu fooy koj sa morom te boo ko fa kojee yàq événement bi moo gën a yomb mu defaru hmm. combat Modou Lô ak amaa Baldé bi nag yaa yu énormément de rebondissement yoo xamante ne gars yi wuñ ko combat Modou Lô ak Ama Baldé yàq yi nekkuñ ci suuf kenn xamul nu mu toll hmm. kenn xamul nu mu toll yàq yi nekkuñ ci suuf ay gaay yu ñuy xamb ak yu ñuy dóor pour benn combat boobu am

nii su ma ne woon kar nga xëcc audio play benn audio nii nii nii nii nii tey guddi gi Sénégal xara kon sutura dafa baax te dañ delloo si xel yi dafa baax li may wax ni am na ñu nekk ci live mun nañ am na yoo xamante ni yu bëri ñun dañ koy xamante suñu biir mais di dëgg bal bi parce que du lépp lañuy wax du dañuy bëgg a coow rek ñu taal di wax boobu nga fi may waxee mais am na ay mbir yu bari yoo xamante ne am na xam na ay mbir mbir yoo xamante ne am na ci làmb ay affaire yu mais dañ ciy dëgg bal bi teg mais bu ñu bëggee di weerante bu ñu bëggee di wax di révélé di kii yooyu noonu yëpp saa waaye léegi kàtt gi jaxasoo làmb nag fi mu jëm palaa ji fatam c'est très ci ruq ba toog di xaar itte il a une pression dégg naa la nga ne Balla Gaye de Siteu mosuma cee nangoo wax te Balla Gaye de Siteu alaaji fadam promoteurs yi aujourd'hui ils sont prêts pour Balla de Siteu ils sont prêts pour Amar de Amar Ama est démarché depuis très longtemps mais Amar de le problème bi ko bi ko sonal mooy Ama Baldé Gris qui bi nekk ci donc aujourd'hui Balla de Cité est plus crédible Et que nga secret yaa ngi commencé est en négociation très avancée avec l'INSEP de Paris Et Balla Gaye ci boppam bi yoon moo jël ay décisions pour rejoindre l'INSEP de Paris am na lu ci xam lu bari mais duñ ci woon communiqué fii ak Aziz Ndiaye waxu ko mais comme Aziz Ndiaye waxal na ko boppam c' est une confirmation Balla Gaye 2 va aller à l'INSEP Aziz Ndiaye comme ni mu ko waxee pour une longue période mais hmm. aujourd'hui Balla Gaye 2 son premier adversaire Balla Gaye 2 Tapha waroon na taxaw bu yàgg li tax Balla Gaye 2 Tapha taxawul woon mooy on attendait Siteu face la prestation ak Lac de guerre de ñu ngi sax tooñ si Balla Gaye ñu ngi sax tooñ Balla Gaye ne dafa woo Siteu à la veille ne ko boo daanee ma may la c'est pas ça ça c'est pas parce que maanaam bu yàgg la ko Balla Gaye wax dinaa la may loolu wax bu yàgg la mais surtout ni mu ko rapporté ne boo Balla Gaye jokkoon ak Mama Lamine ne ko dinaa la may chance ak tàng-tàng beeg yooyu Balla ñu foog ni Balla Gaye da doon xeex Lac de Guiers ni c'est pas vrai mm-hmm. c'est pas amul fenn fu mu toog xeex Lac de Guiers numéro ndax ndax ndax loolu bi mu amee sax bi mu amee ci guddi gi ah benn mbër bi ñaan Abu Ñaasa dafa ma woo téléphone dama fadam dama bëgg nga jël ma interview wala nga jël ma live ndax Balla Gaye numéro 2 bi muy wax euh, Mama Lamine waxutoon sax si tër. Hmm. Balla Gaye moo doon wax ak téléphone Mama Lamine. ndax Balla Gaye ak Mama Lamine dañuy diggante loolu mu ëpp na six mois. six mois nee na bi muy waxanteeg moom. Balla Gaye Mama Lamine loolu na ay années. waaw wax ak moom ci tër yéeg ne Balla Gaye lay waxal mu ñëw na ko waaye Mama Lamine waxal sa grand bi mu may ma chance Balla Gaye ne ko góorgóorlu. boo góorgóorloo bu ñu jéem ci kanam dinaa la dafa yàgg sonal Balla Gaye 2 Siteu musul respecté Balla Gaye 2 comme Balla Gaye 2 li mu doon def Yékini Siteu noonu doon def Balla Gaye 2. boo gisee diggante Siteu ak Balla Gaye 2 mu commencé rafet ñu ci waxlante wax waxtaan bu rafet Mama Lamine na tax parce que Balla Gaye ñi mu mel ak Mama Lamine mhm. ku ci nekk Mama Lamine ngay rus. mais alaaji Fada bàyyi xel benn affaire gis nga Balla Gaye wax naa ko ci laaj benn jour toujours ku koy dumal Siteu lay wër. Balla Gaye maa mm-hmm. nettali moom muy démarché combat Ama Balde ak Siteu jamono jooju mook Ama Balde nii lañ def muy démarché combat Ama Balde ak Siteu boobu amaa Balde jëlugul bëri Papa Sow ba pare amul ko mu bëril Balla Gaye 2 ngem Sa Thiès Sa Thiès daan Siteu Siteu continue di ko sonal Balla Gaye 2 di utaat ku duma Siteu te Ama Balde la bëggoon mu duma Siteu parce que Siteu da ko sonal te Balla Gaye 2 mooy mbër boo xamante ne bëggul ko ko sonal ci làmb surtout xale bu ndaw di ko sonal di ko perturber day bëgg toujours ñu lay duma ci làmb donc tey Balla Gaye 2 ak Siteu bu rafetee as tuut Mama Lamine a tax mais teewul Balla Gaye 2 ñu ne lu ñu wax ni moom moo ko wax ci combat Siteu ak Lac de Guiers 2 ah non vraiment loolu ay mbir la yoo xamante ne kenn séntuwu ko mais dama ne tey boo gisee Balla Gaye Tapha Tine taxawul ba léegi ñuy wax yéen Siteu ak Lac de Guiers la promoteur yi doon xaar mais Balla Gaye ak Siteu fu toll dafa xeeñ mais problème ma fu mu cangee man ci sama sama analyse laa lay wax man du lu promoteur li ma wax maa ngi déggante ñoom ñëpp mais sama analyse personnelle laa lay wax Balla Gaye ak Siteu cachet ba day élevé dégguma cachet dafay bëri ci Siteu li ko nar a fay nar a fay Siteu day bëri léegi problème bi mooy Siteu couteau double tranchant lay nekk mooy soit Siteu day yéegal enchères yi toog di xaar ne man maay bëri Balla Gaye maay combat bu neex mais promoteur yi li ñu nar a nappee Siteu mooy boo yéexee jël ñu taxawal Balla Gaye 2 ak Tapha mm-hmm. kon Siteu léegi day dute ci maayinam moom ak waa këram ci est-ce que dañuy gaaw a jël Balla Gaye 2 ci benn cachet par exemple cent millions wala dañuy jaay ay neex yéegal baar bi cent vingt millions mais bés bu ñu yéegalee baar bi cent vingt millions cent trente millions est-ce que ci diggante bi Balla Gaye 2 Tapha Tine taxaw parce que attention modulo Lo saa yu Boy Niang numéro 2 modulo combat bu gëna jaadu gëna neex modulo Lo lay doon. Hmm. mais Boy Niang 2 saa yu modulo dafa am benen mbir bi nekk su moy mooy Gris bu daanee Ama balde Gris Bordeaux ak Boy Niang mooy taxaw. parce que hmm. boobaa Gris Bordeaux bu daanee Ama balde face day bokkaat ci coow dañuy buux Gris Bordeaux pour mu uti du combat royal te Boy Niang booba day am lu deux day am day am devoir fayul Ama balde kon tey Siteu mën na retrouver wu produit mais lépp ay calcul la. xam nga comprendre nga fi may waxee. bu baax Siteu mën na toog mën na ñàkk carte gi mais taf booy ñaa bu Modou daanee booy ñaa tafaatin bu dugg see ci ci ci guerre bi tafaatin ak ak Modou Lo ñuy bëri parce que booy ñaar tafaatin c'est du déjà vu te combat ba yàggul te booy ñaa gëm naa day éviter tafaatin parce que combat ba mais mais man ba jour li ma la ko bëgg laaj rek li ma ko bëgg laaj muy booy ñaa di Modou ndax ñoom seen combat bi ñu ko gagné ndax yaa ngi préparé sax ndax bëri tabaatin waaw bu ne ndax dégg waaw dégguma ñu ci dégguma ñu wax ci mayuñ ko xorom daal loolu man li ma gëm mooy Modou faalewul Tafatin Modou Lo dafa jàpp ay mbër yu bëri daf leen jàpp ni daf leen di daan facilement te Tafatin Modou Lo da ko boole ci ñooñu mhm. hmm? léegi léegi li ngay comprendre mooy Modou bu daanee bu daanee booy ñaa mun na jël Tafatin

franc lay jëli ci mais Reug Reug bu daanee ci Bombardier làmbam day xaw a tëju tëju boo xam da koy orienté ci Lac de Guiers numéro deux Reug Reug da koy orienté ci ci ci ci ci ci Lac de Guiers numéro deux xaw na comprendre fi may waxe parce que reg Reug du mën a am Modou ak euh, Boy Niang du fa mun a am kenn du mën a am tafaatin parce que tafaatin ci kanam lay jëm du mën a am Balla Gaye 2 parce que Balla Gaye 2 combat am na taxaw ci diggante bi du bërig Siteu du bërig Eumeu Sène revanche ak Sa Thiès day teel Gris Bordeaux bu amee ndam ci Ama Baldé rëg-rëg du Gris Bordeaux du bërig rëg-rëg Gris Bordeaux peut-être bu daanoo ci Ama Baldé peut-être mën na bërig rëg-rëg donc il faut nga xool bu baax rëg-rëg Lac de Guiers 2 mooy gën a yomb taxaw autre chose moo tax ma ne la fu mu toll Siteu ak Balla bi dafa leer dafa leer en termes d'argent parce que Balla de Siteu Balla de Tafatine déjà bawol bawol yi duguñu ñu sacrifier ba Tafatine Tine mooy Tapha Tine liggéey ci sa carrière ba tollaat ci ben niveau bi ci côté finance ci côté ci côté investissement nga enchaîner ay victoire ba tollaat niveau élevé ne da ngay dem di bëri juwaat ci ginnaaw te nga mun a am couronne royal couronne combat royal donc tafatine aujourd'hui il va focus sur le combat royal du jël Tafat du jël Balla Gaye numéro 2 alors que Balla Gaye numéro 2 tey boo ko tëggoon ak Tapha Tine billet bu gën a yomb cinq mille lay doon mais Balla Gaye 2 boo ko tëggee Siteu billet bu gën a yomb dix mille lay doon mm-hmm. promoteur yi rapidement sa calcul la dégg naa ñu naan na nañ nana naa affaire bi nekkatul ci ay combat yu équilibré ou pas équilibré mm-hmm. xam nga fu mu nekk fu mu toll ci combat ba promoteur bi da ciy dugal xaalisam mu am coow xam nga maa ngi dégg ñu bëri naan état dañ dugal xaalis seen loxo ci làmb nana ni nana naa affaire yi ce sont des affaires de ñoo ak yooyu noonu promoteur léegi lañ def euh, conférence de presse fonds joxegul dërëm par rapport ak financement yi promoteur hmm. boo gisee combat yi dajaloo nii mooy tey CNG taxawaay bu mu am par rapport ak certificat médicaux yi mooy médical bi la CNG fu mu toll yi dëgëral mbëri ñameetuñ dugal certificat médical mbir yu yàqu woon CNG reprogrammé ko ci benn période gars yi di sóoraal ni élection yaa ngi ñëw tëgg ci période élection dafay compliqué xamuloo dëkk bi après nu muy demee ñu anticiper seen ay combat ak pour beneen affaire coupe d' afrique bi gars yi bëgg dóor seen ay combat balaa coupe ak yeneen ak yeneen yeneen donc boo xoolee li ma lay expliquer contexte boobu tey du nelawloo sénégalais yi du leneen mais promoteurs yi ak guerre promoteurs yi mooy promoteurs yu xëccoo ay affiche yu mag ak ñëwaat ci làmb guerre boobu moo tax combat yi bari combat yi tegaloo mais du ay raison politique état ngembul promoteur yi c'est pas vrai ça du ay raison politique ba pare tamit ko souriwee tey bu doon ay raison politique tey da ngay xol Baye Ndiaye taxawal ne eum sen Sa mais il a un problème de date te boo xoolee am amna ay combat amna ay combat yu ndaw yo xamanteni budget bu motul 10 millions yu nek ci diggante janvier ak février te Baye Ndiaye amul manam bu état dugaloon loxom ci lamb état bu ne woon Baye Ndiaye par force indi ñu ay combat yu mag lim ñu ko laaj indi ñu ay combat yu mag keneen ak keneen indi ñu ay combat yu mag kon combat yëpp da nga koy dégg ci diggante janvier février avant les élections mais fu mu toll xoolal Baye Ndiaye tëgg na combat boo xam le budget c'est plus de 200 millions en termes d'événement mais mënu ko tëgg te am na promoteur yi am ay journée yoo budget bi 10 millions la mais état tey nga fonni bu defoon loolu ministre bi du woote Bira Sène ne ko eh wottul leen ñu benn date bu ndaw ngeen génnee benn règlement bu bees buy wane ni que les combats yi mag ñoo prioritaire mais état bu doon dafa investir ci làmb mais état noonu lay doxalee mais mu ngi nii Baye ñay fu mu toni est-ce combat am du ko yóbbu mois de mai te lolu après élection yi kon ana investissement wu état wala ana investissement wu les politiciens pour bëgg lambi yi la am lim ñu ko lay tay amaan na xalaatu tëgg combat bi février mais tay combat bi ñu ko waxu mai après élection kon ana doole bu ci promoteur promoteur am euh, bu ci bu ci état bu ci politiciens am ci côté bobu non mais le par contre les politiciens instant gis nañ ni que lamb ji bu delluwee place am

dafa am ñetti yoo xam dafa nekk suñu kanam mooy ni nga ko waxee élection yi coupe d'Afrique bi ah ak weeru koor ak tabaski yooyu yëpp dafa tegloo loo te yooyu yëpp promoteurs yi duñ ci mën a duñ ci mën a duñ ci mën a tëgg mais léegi tey jii li man li sans problème ba sama man ma bëgg koo xam ak fi làmb jëm kon combat yi ñuy wax ni ci bëri à part de cinq mois lay mën a taxaw lañ koy mën a bëri bu fekkee ne taxaw na. maa ngi lii gars yi naan promoteur bi état woo na leen jox leen cinq cent millions promoteur yaa ngi doon conférence de presse léegi pour bëgg kaas ne cinq cent millions yi ñëwagul ñu woo leen ci suuf ne leen mujj leen tuuti état joxagul leen dërëm cinq cent millions yi duggagul amul kenn ku ci jotagum cent franc fu mu toll nii amul fo si bu gars yi di wax nii promoteur loolu lañ doon bëgg a kaas amul kenn ku ci jotagum cent franc ñëw leen rek ne ok promoteur diw ok yaa tëgg combat bi alloué nañ la tant de millions yoo jox nañ la vingt yoo jox nañ la trente yoo jox nañ la cinquante noonu lañ ko tasee de mais ci wax xaalis bi génnagul ba léegi. te combat yooyu yëpp taxaw bu muy taxaw boobu tey daanaka waxtu ñu ñaata la leen jox promoteur yëpp dañ taxaw seen seen seen seen système ñoo ñoo dëkk tey man Fadam dama lay wax dëgg bu dee dëgg rek fu mu toll nii diaspora bi ñooy dundal làmb bi mooy pay per view ñooy ñooy dundal lamb de. bu ñu pay per view bi tey promoteur bu ci tëgg perte. loolu loolu ma gëm mooy gëw ma ni état fu mu toll nii mooy doxal làmb gëw bi fu mu toll nii ak pay per view bi ak xaalis bu ñu reversé promoteur moo tax promoteur di bañ a perte ci làmb di ci am bénéfice. gëm ko billaay billaay loolu nga wax dëgg la man. sama bopp tey man kenn xamewuma euh, politique. te kenn xamewuma appartenance su ma su ma waxoon fii sama appartenance politique sax mooy loolu mais tey gëm-gëm bi ma am mooy li may partagé mooy cinq cent millions yooyu ñuy wax cinq cent millions pour ma yi jotaguñ ci cent franc gars yi nag ñu ngi dundee yaakaar est ce que dana est ce que naxuñ leen sax est ce que du calmant la leen jox di leen teg dil dina am ñu xam de dina am ñu xam de boobaa des fois gars yi da lay wax ñaata promesse la la tey ji des fois état di def te état du am capacité wu honorer loolu yàgg na fi des fois état ñëw ne dañ leen jox ay suuf dañ leen di dédommage dañ leen di kii mais yooyu dara du ci am ma promoteur bu ci compter pour FONGIP bii mun ngaa dem ba tëgg ba sa làmb jeex te doo gis xaalis FONGIP wóorul de. loolu loolu am na solo mais ba man sànq da nga dugg ci benn point boo xam ne nii point bu intéressant la. combat yi nekk ci kanam nii mooy combat yi mag yi. Siteu mu ngi jouer le jeu te yaakaar naa ne tey jii mën naa bëri beneen combat mën naa bëri Balla Gaye numéro 2. mais base combat bi nga xam ne ni tey jii gars yi koy négocier mooy Balla Gaye numéro 2 Tapha Tine te kaawu Tapha ñoom seen mental yëpp mooy xaar diggante booy Niang ak Modou Lo le premier janvier. léegi tamit foofu le premier janvier boobu mbër mi daan mën na fay teggi Tapha Tine dem jëli beneen mbër. loolu moom mën naa am. du du yomb nag du yomb surtout bu nekkee Modou Lo moo daan du yomb mu jéggi Tapha moom bu daanee moom. et puis surtout Modou Lo c'est quelqu'un qui relève des défis Tapha Tine Boy Niang mën na beneen neexaat ndax c'est du déjà vu yàggul. Mhm. mais combat boobu dafa ranking bi ci nekk ba léegi de. Hmm? combat Tapha Tine Boy ñaar ba léegi nii ñaari bëri ndax li ngi tuddante sax ba léegi. waaw non kon combat boobu. mun na nekk surtout que Tapha Tine keroog dégg nga déclaration bi mu defoon ci kii bi nu mu tuddati encore. émission biñ ko defoon muy préparé Eumeu Sène dafa tak ci ko Boy Niang leena na tapalé yi na bàyyi limuy wax dama ko duma génnee ko saako yi xaw ñaata yoon muy ñëw taxaw fi di wax yeneen ak yeneen ak yeneen vraiment donc c'est tu as raison quand tu dis que quand tu dis que Tafatine euh, Boy Niang am na ci nelaw deug la effectivement mais man dal combat jank la préféré su munul nekk Boy Niang ak tafat su munul nekk Eumeu Sène modlo ak euh, Tafatine na na na nañ ko def Boy Niang ak Euh, feneen quoi Boy Niang ak keneen Tapha Tine tamit defi leneen parce que mu toll dëgg la man maa fi doon toog naan grand contre petit yi du yoon parce que petit yi dañuy échoué rek may chance ñu échoué mais neexul ba neexul mais grand contre petit yi ñooy neexal làmb te léegi nag combat jànq yi grand contre petit plus combat jànq combat revanche vraiment doy na xam naa ne daal am na combat yoo xam ne bés bu bu yeewoo ci réew mi mhm. ndax combat royal a sax

donc man su sauver le discours de Tafatine mu outil keneen mais roi bi roi bi roi bi vraiment loolu du challenge pour Tafatine bu boy ñaar dané quoi. le tour de Balla Gaye numéro 2 Aziz nee na dina def UNICEF euh, te yakara dafa def weer bari bëri loolu Balla numéro 2 lo ci xaar moom. waaw Balla numéro 2 il faut pas qu'il tombe dans un piège bon là je le dis clairement il faut pas que Balla 2 tombe dans un piège dafa am benn waxtaan ma waxtaanoon ak mom

façon ci staff ci lépp Balla Gaye de il n'a pas fait de même digganteem Boy Niang ba digganteem ak Boy Niang ñu bëri doon wax ni Balla Gaye de Boy Niang ko dugal ci làmb ji mais est-ce que booy Balla Gaye de yéexut a dugg ci làmb noonu Balla Gaye de préparation bu mu laajoon est-ce que Balla Gaye de tegu na ci léegi il faut dire que Balla Gaye te am na adversaire yoo xam ay naataangoom lañu bés bu leen Balla Gaye de amee Balla Gaye de da ciy teg bakkanam ci côté yëpp bu ko erreur bi ko dal contre Boy Niang bu ko dal ak site moy Balla Gaye bu mu jël site japp ni site be sama beñe la sama noy neex la site jarul INSEP finalement bàyyi ma toog fi senegal ma wacc ko wacc yaay bu oyof rek bu arbitre sifflé demay ñew ma vraiment site mënumaa daan Balla Gaye 2 bu défé lol ci xelam rek yak na combat ba parce que site bu jëlé Balla ñi mu rëdd erreur bu mu def ci Lac de guerre 2 di def parce que site amoon na planning de de préparation bu mu amone diggante mak Lac de guerre 2 mais affaire dafa dem bu mujjé dafa short dafa gàtt mais Siteu li mu indil Lac de guerre 2 bëggoon na ko indil lu gën graw garaaw léegi Siteu bés bu jëlee Balla Gaye 2 financièrement ni mu nar a nekkee à l'aise ndax cachet ba ci combat boobu noonu Siteu dafa nar a dans des conditions optimales pour bëri Balla Gaye 2 et puis Siteu a des arguments pour perturber Balla Gaye 2 parce que Siteu c'est quelqu'un moom dafa ñëmé xeex yobu na mbir yu bëri ardo te bo xolé combat ma la de guerre 2 sa xeex na ci xeex bu neex te xeex Balla Gaye 2 bëggul ko ko dóor saa yu ko dóoree gaynde gi day yeewu ci moom te lamb ku nekk ku jël sa avance mun na laa daan donc Balla Gaye dégg naa ñu naan xaalis ak yooyu ne oui xaalis c'est bien beau mais Balla Gaye du xaalis bee ko intéressé de attention de loolu calmant la ñu Aziz di jox noonu rek Aziz da leen di nax de yaa nan ko ay ay wéy combat royal nan nanana mo ne non ñun Balla Gaye de objectif bi mi tabax ay kër business Aziz mo leen di tour lëndëm mais Aziz ko ko yee xaaja guddi yee Balla Gaye de xaaja guddi xar seen xol bi mooy Balla Gaye de ñu ko yóbbee mu nekkat roi des arènes nekkat au sommet parce que Balla Gaye ñoom bu ñu ko yóbbee ba mu nekkaat le roi des arènes fofu le produit bi di gën extraordinaire fofu la cachet lamb foofu lañ koy jëlé 150 millions yóbbu ko 200 millions yóbbu ko 250 millions

loolu mu ne bëreeg Gris Bordeaux wala mu bëreeg Balla Gaye numéro 2 moo ko gënal fuuf mu bëreeg Ama Baldé loolu tey jii ndax mun na nekk information boo xam ne nii boo xam ne ni bu leer la wala waxu amateur yi rek la. non surtout Ama Baldé buñ koy dox léegi yàgg na yow xam nga ci dara surtout Ama Baldé promoteur yu bëri ñu ngi ko doon dox man personnellement am na promoteur yu bëri yoo man maa leen ci génnee buñ ma waxee maa leen non Ama Baldé euh, da ngeen koy yërëm Ama dina enchaîner ay quatre cinq combats. mais il faut arrêter quand même Ama n'est que ci deux contrats contre Moutlo et contre gribodo Bordeaux beaucoup de ko troisième avance contre Siteu bàyyi a Ama balde mu tranquille mu liguey mu parek Modou beuri bëri Gris Ama Baldé du ñak dara ci lamb te waxon nako fi ci live Ama balde Ama toog na 4 ans xawma 5 ans ans wul mais euh, Ama balde limu mu contre ci làmb dina ko récupérer ndax dina dem bay ay quatre combats ci ben app tay li ma lay wax mu ngi ni tay saison 2023 2024 ci benn saison Ama dina ci bëri inshallah a rabi trois combats parce que bëri na diggante de Modou Lo day bëri gri diggante ma Gris Bordeaux début janvier te xaaral Ama tejat saison ndax fu mu toll nii boo xoolee le meilleur produit de l'arène c'est Ama Balde le meilleur produit de l'arène le meilleur produit de l'arène fu mu actuellement Ama Balde est devant Ama Balde est devenu le meilleur produit de l'arène laaj ma lu tax aujourd'hui en termes de billetterie, Ama Balde a battu tous les records en termes de billetterie. Bokhole Ama Balde, la dernière fois, il a mobilisé la moitié de l'arène nationale à un billet qui n'a jamais, jamais été euh, égalé. 10 000 francs. Billet Ama Balde mobilisé la moitié de l'arène nationale. Tu sous 25 000 francs, Ama Balde mobilisé la moitié de l'arène nationale. Donc, Moutlo, n'a pas fait pareil Modlo, je le côté Ama Baldé trois fois côté Modlo. Lo lan peut-être Modlo gagne, un combat bi gars yi ci ragaloon dañu bari détails on sait pas mais Ama aujourd'hui en termes de billetterie ak Pikine ni mu jegee arène nationale ak Ama Baldé ni ko aujourd'hui Ama a battu les records en termes de billetterie et en termes de pay-per-view c'était le premier pay-per-view de Ama mais ce pay-per-view il s'est passé seulement à l'international a battu les records de tous les pays pourvus le Sénégal la diaspora Comme on a dit, international diaspora qu'est-ce na gagné na ñi mës a pays pourvus pour boole Sénégal la diaspora té amna fi ay combat am dañu bolé Sénégal ak diaspora muy Balla de 2 Bombardier dañu bolé Sénégal ak diaspora muy tay Gris Bordeaux Balla bu jëk dañu bolé Sénégal ak diaspora yépp pay-per-view la Balla Gaye dañu bolé Sénégal ak diaspora yépp pay-per-view la Ama Baldé ak Modlo battre nañu record yooyu donc tay Ama Baldé en terme de pay pourvu. c'était son premier pay pourvu. c'est le meilleur pay pourvu de tous les temps en terme de billetterie c'est le c'est la personne qui a fait plus d'entrées te man détail yooyu du ma ci du ci wax mais bo c'est Nicolai wax ci Luc nicolas mo dugg ci live confirmé ko donc amna sen sen sañ ñëw jaara ci kon Ama Balde est le meilleur produit ci lamb fu mu toll en terme de de khalis kenn du wax ay chiffres la du ay nit ñu may yoy dugg di sama ben coiffeur coiffeur bi neuma Luc combat de Gris Bordeaux Luc un milliard parce que 1 million cinq mille sénégalais jënd nañu à 1000 francs un million de sénégalais nañu. à mille cinq cent francs mu ne ma jaay nañu un milliard cinq cent ma ne ko saa yow dëgg nga fi de yow loolu ku la ko wax mu ne waaye loolu moo am ma ne ko est ce que xam ma ma ba ma ne ko est ce um xam nga yow li ngay wax maîtrise nga xool maîtrise mu ne ma saa waaye un million de sénégalais jënd nañu mille cinq cent francs cote bi mu nekk un milliard cinq cent ma ne ko waa baax na ma génn watu ba dem ci benn conférence de presse benn face à face euh, ñu face à face ba pare mu gis ma may toog di wax pay per view ma ñëwaat léegi ci ci bés ba mu xam ni man maay def pay per view mu ne ma mais bés ko ñu yaay def affaire boobu ma ne ko waaw ma ne ko alors gars yi jaay nañu un milliard cinq cent mu ne ma yow gars yi dañ lay nax rek xamoo luñ jaay yow gars yi luñ jaay xamuñu ko te ma ne ko yow yow promoteur yi maa leen di fay di interface yi maa koy gis man maay xam ñaata la ñu jaay <laughs> man maay jël <laughs> man maay jël ñu jaay neen temps jël wàll gi jox promoteur bi yow nga ñëw nga ne ma promoteur bi daf may nax <laughs> promoteur nan la may xalaat fa donc nit ñi dañ dëgër fit rek mais tey li ma la mën a wax mooy actuellement Ama Baldé mooy produit mu gën a dox ci làmb il a battu Balla Gaye 2 Modou Lo Siteu Boy Niang non non non c'est le meilleur produit ci làmb Ama Baldé léegi nag dañuy xool est-ce que ñeneen ñi léegi dinañ yeewu est-ce que ñeneen mais Ama Baldé li face à face mais mais ndax am na combat bi gars yi dinu mënaat bu ñu tudd bi la combat boobu moom bu taxawee buzz moom dama ragal mu baat record yëpp Siteu Balla Gaye c'est possible gëm nga ko Siteu Balla Siteu Balla Gaye c'est possible parce que Siteu Balla Gaye billet dix mille lay nekk arène nationale amul werante Siteu Balla Gaye bu nekkee billet dix mille Siteu day def moitié Balla Gaye di def def moitié arène nationale day fees Siteu Balla Gaye de billet dix mille arène nationale day fees Siteu mobilise la moitié Balla Gaye mobilise la moitié boo ñëwee ci suuf itam amateurs yi combat boobu dañuy ñëw amateurs yi ils adorent Balla Gaye dañuy ñëw donc combat boobu noonu day battre record de billetterie au niveau de l'arène nationale léegi au niveau du pays per view nag ci communication bu ñaari mbëri di amee bu abu sekk fële fële abu njaase fële fële nele koli fay deux fële mama lamin fële tous les tarkindaa hein, bu ñu communiquer. Hein, ah saates war a fële fële nit ñi waa géej waaye war a fële fële seen yaram bu tàng donc toute cette communication là fera en sorte que vraiment di fanam, on va vers un combat de de de qui va battre tous les records Siteu Ama Baldé oui c'est un bon combat mais. Euh, mën na bañ baax. daf naa ñor daf naa ci kanam. xam naa xam naa xam naa li tax ma wax ko. jërëjëf yàlla na yàlla defal jàmm. jërëjëf Alaaji Fadam. yàlla nañu ko jërëjëf jërëjëf Alaaji Beuz. <laughs>